alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah nabiyina wa mawlana wa amadin wa alihi wa man wala mbokk jullit yi suñu ñaareelu xutba ñi ngi koy jëme ci dëggu xam ngeen na dëggu sun borom tabaraka wa taala dëf koo bëgg ci jullit bi ak nit ku mën doon sax waaye ci jullit ci la raw jullit moom man na def lu nekk ñu tolareel ko ko ba mu des ñàkk dëkku borom bi mi ngi wax ci téeréem bu tedd bi ne yéen ñi nga xam gëm ngeen na ngeen ragal borom bi na ngeen ma ragal man borom bi subhanahu wa taala waaye na ngeen nekk di way dëkk dëggu nag ci wax ak ci jëf ak ci yéene pour boroom mi ngi tàgg way dëggal ñu góor ñi ci alquran ak way dëggal ñu jigéen ñi nee bu ngeen dëggalee day loolu mooy li nga xam ne mooy la gën ci yéen tey aw yiw rekk ngeen ciy jële nit ki dafa war a dëggu ci ngëmam dëggu ci topp yàllaam waaye na dëggu itam ci société bi muy dundandoon ci lépp lu mu wax rek ñu xam ne kii kat ab dëgg laa xon na waaye dem ba àgg foo xam ne lépp loo wax nit ñi dañ naan ah baa du waxi diw loolu day ab jullit war na koo moytandiku bu baax a baax xam ngeen na jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam am na ñu doon ñëw di ko wax ne gëm nañ waaye fekk loola ñuy wax kat ca làmmiñ ya rekk la yem waaye lépp ñu ci seeni xol borom bi nga xam ne mooy ki xam lépp xamal yonente bi alayhi salatu salaam ne ko ñii moo tax ñu jële ci ibnu mu wax ne yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na nit ki day du dañ di dëggal lu dul dëggal googee jëme ko ci ak baax waaye mbaax googa fa muy mujj ak moom mooy wommat ko ba tabbal ko aljanna mu ne amul kenn koo xam ne yaa ngi dëggal ba mujj ñu bind la ca malaayika yee diw day doomi diw ak diw ak dëggalaa la waaye nee na nit ki du dañ itam di wax lu dul noona ba ñépp xam ko ci moom lu dul ci jikkoy kàccoor la ko ñàkk wax dëggam googee di waaye du yam ak moom foofu waaye daf koy jële ci kàccoor na ànd ak moom ba biir safara wal iyaasu mu ne amul kenn koo xam ne danañ dem ba ñëpp commencé ne diw waxkatu lu dul dëgg la lu dul ñu bindal la ca malaayka yee diw moom lu mu wax lu dëgg loolu nag dara rëy àdduna jëru ko moo tax mu wax ne moom alayhi salaatu wasalaam nit ki dana laaj suñ boroom pour mu bokk ci way jafeñe su ëllëgee waaye nee na su dëggoo rek dana am daraje su hada te mooy ñi nga xam ne dañoo jëy ci lislaam doonte sax dafa faatoo ci kaw laram waaye la ñuy bind ca moom rek mooy ñu wax ko lu dëgg la woon kon dana ko yéegi ci daraje su hada wu yem te loola mooy li am solo alquran nee na ñi doon dëggal lay su ëllëgee googee lu ama am la amul kenn koo xam ne da wax benn baat te baat booba jubluwoo ca lu dul reetaanloo nit ñi ak jàpp ne waxi caaxaan la lu dul su ëllëgee suñ boroom dana la ca sóor ci xur wu nekk biir safara yoo xam ne daytal ba juróom-ñaar fukki nawet la bala ngaa àgg ca daytal ba kon nak nañuy moytandiku di wax lu dul dëgg ak lu caaxaan bari bari lu kaf bari bari fexeel ba la ngay sàmmoon jël ci biir waxtaan wa ak ña ngay waxal na doon dëgg rek waaye bu jël dugal mukk baatu bu reetaan loo wala nit ñi bëgg a jàpp ne ku neex dereet nga wala yow bii kat ku yóbbi mbir nga ba tax ngay boyal saw lambiñ di wax loo xam doo ca def dara te kat lu yaatu la fi ci jamono moo tax di wër di baati askan ci jamono ñu nga ci nit muy wax ci yow di mujj wax ji ay ya reetaan la lay def ndax da lay ya. nah, wóor ne kii li muy wax doonul lu man waaye dem ci nit bëgg dem ca ensemble tax ngay wax loo xam la ngay wax doo ca def dara da koo mënul sax nag mënoo ko sax ngay wax yow da yow ndax ku ne xam na ne société bi tey boo leen laajoon na leen ñiy dem assemblée lan lañ leen jariñ ña la ko cay wax lu néew a néew la daanaka ñu suñ assemblée yi assemblée yi bo état bokk la ki nekk ci pouvoir bi daal mooy yor majorité te majorité ba boppam la fay nekkal lépp lu yóbbu bëgg ñu wate ko ci loi moom bu àggee danañ ko ko wate waaye man ah xëy na sama xam-xam yàlla waaye mosumaa gis député ya nekk fa di xuloo ci bëgg a wate watak nan wàññi dund bi ba ñëpp man cee jot loolu man mësuma koo gis gisuma it ñu taxaw fa ñu xuróok a ŋaayoo ngir ne nan wàññi coran bi ba mu yokk ci société bi waaye toujours lan fay ñiiroo ka ci ensemble bi yépp mooy gouvernement bi andil nañu ab loi nañ ci xam suñ tànku tubay pour wate loi bi te loi booba mën naa am cinquante pour cent wala soixante wala quatre-vingt-dix-neuf pour cent yëpp luy arrangé état ba lay waaye yoonu société bi moom du yem kon nag nañu xam rôle député ak lam war a def su àggee foofu député moom su fekkoon ne di falu aw askanam ca gox ba ndëkk ñooñaa ko war a fal bu demee nekkal fa ñooña lu waa dëkk ba manqué mu di ko fa wax far ca tànku tuba yëpp bu dëkk ba manqué ndox mu fexe ba mu am ndox bu manqué courant bu fexe ba mu am courant bu manqué fajukaay bu fexe ba gouvernement ba yóbbu ko ay fajukaay waaye assemblée boo xam ne toujours état la fiy nekkal loola moom mooy li ma gis man moom daal ay loi danañ ko wate yoo xam ne lu bàyyi ko ca ba moom bu ñëwee danañ fexe ba mu jàll ndax bu boobaa ñoo fay ëpp majorité bu boobaa lañ bëgg mu jàll moom dana jàll waaye taxaw fa taxawal fa askan wa nag mu jaral leen lu ne loolu moom manqué na bu baax a baax ci société bi moo tax digg yi ñuy wër di dig nit ñi ne ñi xam ne loola ñoom mënuñu ko ñoom lan man mooy wote waa bu bàyyi ko ci gouvernement te mooy mooy mooy ñoom bu boobaa it ñooña lan fay nekkal ndax dañuy wax ne liste diw moo ma fi indi waaye doo wax ne askan sama bopp ñoo ma fi indi waaye la ngay wax rek mooy liste diw moo ma fi indi kon lu neex diw moo ma ca laay xëy kon waaye sama askan ak fa ma bàyyi ko fa ma jotaanoo am na ci député yoo xam ne sax mun leen xasee fam dootuñu jàng ko dëkkoon la ëpp ci seenu dund Ndakaaru lay doon doon xam ci wala bu ñëwee ci dëkk ya cosaanoo la ñuy fiq ak ñoom mooy di leen may ay xaalis yoo xam ne amul benn njariñ waaye duñ leen waxal mukk loo xam ne dana tax seen dëkk boobee avancé ci wàllu dund wàllu facture courant wàllu paj mu yomb loola duñ wax ci ci jëm mukk kon nag nan xam ne nit ci daal na dëkku ci waxam dëkku ci jëfam lépp loo xam ne mënu ko bu mu ko jege ngir bokku pal ndax pal yii kat amul njariñ diir bu gàtt mu mel na nit ku ko woon benn ay carte jële la fa wala benn faabu jële la ndax bari nañu fi andi woon ay luwaa yoo xam ne ay musiba la te ban watee luwaaye ak ban faatoo benn la te ñooñu ba nëgëni ñu ngay taxaw ci seen kanamu borom war a lijjanti loolu kon nag xam ne dundug àdduna gi lu gàtt la lu ñàkk-ñàkk solo la wala axiratu xayrun wa abqaa dundu gay sax ba jëm ko faw mooy ëllëg kon fii nag ma jàppe bu jaar ci keroog garab di noppalu war a jug jëlaat say bagaas jàll diir ba fay am mooy àdduna waaye fa nga jëm nag mooy fa ngay sax ba faw ilal abad da foofa moom lépp loo waxoon wala nga digewul kóor gi nit bu boobaa da nga taxaw suñ borom subhanahu wa taala xisaab la ca àttale xam ngeen ne Omar ibnul Xataab wax na ne bi mu génnee am na bis waa këram def istixaara ngir bëgg gis ban melokaat la Omar nekk waaye bi ñu defee ñoom jaboot ki ñoom ñépp bi ñu tëggee guddi dañoo gént gis Omar mel ne ku sangu ba génn ci sangukaay bi tarax laayoo benn sarbet ñu ne ko waaw yaa amirul moomin ana naka nag nga defar borom ci lim la fayee Omar laaj njabootam na leen keroog ba ma tàqalikoo ak yéen ak tey ñaata at la ko fukki at la ak ñaar cerem mu ne leen boobu ba nëgëni suñ borom mi may xisaab moom mi nii di soog a noppeeg man nag soog maa jéggal may soog a dugg àjjana moo tax ñu xam ne ndem Seydina Omar ak ni mu bàyyee woon adduna ak li mu liggéeyal lislaam moom la suñ borom di taxawal fukki at ak ñaar di ko xisaab kon kuy jàpp ne mbir yi lu yomb la yëgoo sax la xew suñ te képp ku jiitey nit wala nga dagaan ay kàddu ba jox la ko na nga xam ne loola ëllëg da nga taxaw ci kanamu borom bi mu atte la ja bala ngaa dugg aljana atte booba nag mën naa jur la te fi ñëpp laxaat wax ne ku suñ borom wéetal nag lam la war a def ak lam la war a defal ma mu wax ne defal moom mooy mu fay la waaye def ko ne xam na ni ay duma la wala iyaasu billah yàlla suñu borom tabaaraka wa taala def ñu ñuy woy dëkku ci jëf ci yéene ci suñ diine ci la ñuy jëflanteeg société bi ak lañuy laaj pour ñu fal ñu ca lu mën a doon na ko dëgg lal te benn caaxaan bañ koo lal ndax dëgg ci la lépp nekk yàlla nañu ko suñu borom tabaraka wa taala defal te defal ko mboolam ñi nga xam ne ñooy waa réew mi tey sàkku ay baat ngir ñu jox leen ko suñ fa demee ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax xam ne dëgg mooy lépp اللهم لا تدخل لنا ذنبا إلا خبرت ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا خديت ولا مريضا إلا شفيت ولا مبتلى إلا هافيته ولا دالا إلا هديت ولا خائبا إلا رددت ولا مظلوما إلا نصرت ولا أسيرا إلا فقدت ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها ردا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين